gagner son candidat ah, il a il a droit parce que euh, ñoom euh, Amadou Ba la bëgg mu gagner mais koo xamante ni barki dem la taxaw am naa trois millions wala quatre millions ay ay parrainage mm. te koo xamante ni il n'est

dañ bëgg eggale li nga xam te ni naan seen PSE depuis deux mille trente cinq échange bi boo xoolee les sénégalais c'est pas nekkul lu ma wax sénégalais ñoo ko ils veulent du changement ils veulent du changement le Sénégal actuellement dafa war am ay dossiers yu war leer ci réew mi. non def ni politique dëkk bi am ñoo xamante ne ñu ngi ci kaso bi. Mhm. ay des dignes fils du pays ñu ngi ci kaso bi. Mhm. ah ay ay ay ay ñoom Cheikh Omar Diagne ay ñoom euh, Karim Xurum ay ñoom Karim Xurum Kaax ay ñoom nit dof réew mi pour man. Assane Seck ay nit yow. non non saako ba mu bàyyi ma argument tamit. Oustaz Assane Seck waaw xam nga réew mi. boo xoolee tey réew mi ah, foo ñun ñun instant bi ëllëg ñu xool li nga xam ne moo war a doxal réew mi certes que fii ak trois mois ñu dem mais actuellement il veut encore se reposer ci état bi bëgg a toog encore fois nan ay Amadou Ba Amadou Ba Amadou Ba il n'est pas il n'est pas populaire il faut il faut le dire sénégalais xamuñu ko non non non Sénégal <laughs> yi ko sant ñu am bu baax kii ñëw nag kii ñëw nag kii ñëw ëllëg nag xamaguñu mais actuellement peuple bi. dafa dafa bëgg changement loolu la loolu la. liñ naan gis nga jalis boobu ngay wax euh, daaw na dafa Sénégal yi ñoom ci sa jëm bopp ñëwal ko garaam Sénégal dafa soxla deret bu bees. gis nga benn air bu bees lu bees la nit ñi soxla. mais pas nekkoon. faut le dire quoi. xam nga li lay wan ne Amadou pare na.

30 ministres wala 25 ministres. Mhm. nga am ay députés à l'Assemblée nationale 82 83 euh, nga am ay directeurs et tout ku ci mhm. je pense que vous ñu nee am parrainage man koy gëm. ah bon Mais s'il te plaît. ah mooy boobu Macky Sall. s'il te plaît ma fichier fichier il faut comprendre. il faut retracer les choses. peut-être les les parrainages ils n'ont pas fait pour Amadou ils l'ont fait pour le président Macky Sall. cela veut dire quoi. tu me dis que ma Amadou Ba ta am parrainage yoy waaw Amadou Ba amul soppé est ce que xam Amadou Ba dëkkul Fouta. xanaa waa këram. may ma Amadou Ba dekul foota Amadou ñaari tali Grand Dakar gi la juddoo fi ni la magi fi ni dëkk parcel fi la dëkk Dakaru ñay gi amul ñay Amadou Ba amul ñuko bëgg. Amadou Ba amul ay soppé jabaram am dama deg ñuy wax naan jabaram fan la wara mëna jëlé ay parrainage man tok na biir kër jabaram ñu leen ni indil ay parrainage ño xamné xamuñu jabaram joge dek ak dëkk ni day bëgg nit man jaswara téeméeri junni nit ak ma bëgg te xamuñu ma musuñu ma gis toyuma fenn sensation bu nit di am la bëgg nit pare nako ko anta babakar ngom day dox ci nini nit ñi di dogalé di gis auto bo xamné ne ay photo ma ci nek ay nit di dogalé ay nit naan ki dañ ko bëgg xam jël suñu numéro ngeen présenté ñu ko mais yow xamoo li ngay wax ah, xam li wax nit day sopp nit. at baax moom mi nga xam te ni fu mu génn gars yi yow nga ay yow. bëgg dem nga gis benn benn caravane benn caravane Matam xaw ma Tambacounda. soyons sérieux moom nekk ak ak ay yoo xam ne bëgg nañ Anta Babacar Ngom. ok am na ñoo xam ne bëgg nañ keneen ak keneen na fi wàdd ak keneen ak keneen man tey par exemple su ma demoon élection suñu waa kër duñ ma voteel ma te xam nga ko. samay wa keur la wax man samay wa keur ah. sama nday bima ma samay maga samay rek man duñ ma ko man. te ma leer ba melni midé ki mo tara. merci beaucoup way ñom mën nañ ma benen ah, bañ a benen fami famille ma. ñom mën nañ ma baña a benen fami famille ma. amna amna mais soyons sérieux quand même. waaw ah, mais la popularité amul Ba am na ñu ko bëgg mindaanam bi ci bir keur gi sax mën nako baña bëgg moom dem voteel kéré keur gi mu jàkkaarloo jank ba fay liggé voteel ko tax ñu war a wax ne Amadou Ba amul popularité boobu. non mais loolu moo am loolu moo am. madame madame Sow on a vu loolu après ah ñëpp ñëpp ministre yu bëri ñu indi seen i parrainage. non mais parce que dañ leen ko sant kan moo joxe loolu. njiitu réew Macky Sall moo tànn. waaw waaw waaw kon kay sot la. Amadou Ba rek du moom ki ngay wax Serigne bi ngay wax. naam la xaw ma bi nga naan boo demee neel Amadou Ba. dafa olofal. gis na Amadou Ba ngi toog ci wetu président ah nag nag bu ñu xoolal nag eh, bu bu ñu jàppee ay dof nag. madame Sow leela non non non xam nga tamit. sa ay classe non non bu ñu bu ñu dof waaye dafa olofal man ma gis Ba de bi balaa muy jóg laajte na kan mooy Amadou Ba. <laughs> yéen bu leen jël seen xel rek. non non madame ngi lay. mais xam nga lu ma bëgg a xam. non non attends je m'explique paa bi mi ngi woon ci bir ndaje bi. waaw. mi ngi woon ci bir ndaje bi. waaw jàkkaarloog avant muy jël parole may avant muy jël parole. le président a parlé et beaucoup de gens ont cité Amadou Ba et ont salué Amadou Ba. et avant caméra yi di tak ils ont parlé gisante nañ ils ont passé la ils ont passé la journée ensemble quand même il faut qu'on soit réfléchi paa bi daf ko olofal ne ko neel sa candidat bi. ta mu ngi toog. dégg nga toog neel sa candidat bi. lay saw président le yónni ci Amadou Ba. déjà Macky Sall ba muy. ba muy déjà Macky Sall ba muy il n'a pas salué Amadou Ba ci loxo. ndeysaan oh la la la la, oh. ah image yaa oh, fi Sénégalais oh la la, xoolal. image yaa fi. mais imagine yi lan la dafa rombo Antoine rombo, keneen ka euh, ki sante Fall defe naa ma ki Major je sais pas le truc là. Major Fall Major Fall ils étaient trois. il n'a pas dit bonjour à. Antoine Antoine ni Amadio euh, premier ministre que ko bëggoon jox mais ils ont passé une journée ils étaient dans la voiture Salutations, <laughs> salutation bonne sens sax la waaye lu ñu wax ngeen na ban sens photo yi ngeen tëj fii ne photo amul sens salutation yi ñu ne parce que amul benn sens mu ñoo fee jóge léegi léegi ma yow ma dugg si waat dama fàtte sama naan dina nuyu ñu ngeen ne am mais lan am sens kon man amul sens yow kon dara amul sens fi leen pour humiliation la noonu ngeen gisee pour yéen humiliation les images parlent les images parlent oh là là image day wax kon Macky Sall daf ko jël dafa ragal dama ne la. image day wax wa déggoo ma la léegi lan la image am wax. Hmm. lan ngeen gis lan ngeen ci traduire que bëggul Amadou Ba wala daf ko choisir par défaut wala c'est quoi parce que man je me dis que c'est cinq candidats à la candidature et les, ces cinq candidats à la candidature Macky Sall les a dit je vous aime bien mais moi je préfère Amadou Ba. en tout cas est-ce que est-ce que aussi forcé wuñ ko aussi. kan forcé la si Macky Sall. Macky Sall ko forcé nag. waaw de quoi ma kooku du ko ñuy forcé de yéen wéroo leen. boo ma mayee ko xooloo leen ko. boo ma mayee ma ñëw. waaw gis nga nit. Mhm. nit kese ngay doon da moom sa genn wàll sa genn wàll gi say nital koy moom. Mhm. nit munoo di jël décision ne man dong maa jël li may déedéet nit ku nite nag laa wax. Mhm. da ngay moom sa genn wàll. genn wàll gi say mbokk ak say jegeñaale ak say nit yu baax. ñoo koy moom léegi la ko forcé tu penses explique moi. ah mais euh, la sës la fa sës.